téléspectateurs yi mbokk internautes yi nga xam ne ni yéene safoo di ñu seetaan ci seen télévision TMS TV ñu ngi fii ci bureau sëriñ bi ñu ngi ci bureau xalif bi ñu ngi ci bureau kilifa gu mag gi ñu koy wax docteur Alaaji Thierno Moulay Sow ñu dëgmal nag sangu weer yi muy shawru Ramadan te ci biir weer woowu mu am ci gudd goo xam ne nii sëriñ bi jox ko gëddam fonk ko ndax li guddi gi représenté ci moom ndax ne ba ko sëriñ bi di ko baaxee loolu nga xam ne tey baaxee na ko tey mu di ci dimbale doomu aadama ci guddi googu la ko ko joxe muy leelatul xadri ci la alxuraan wàcc kanam yi ngeen gis nag defe naa ne xàmmee ngeen leen ci keppaaru sëriñ bi xàmmee ngeen leen ci kër gi muy ay membres yoo xam ne nii ñoom ñoo boole seen bopp tënku ànd ak sëriñ bi di ko liggéeyal guddi ak bëccëg liggéey boo xam ne ni am na fu mu tàmbale mais am fu mu yem muy association Darou Life Family pour l'entraide nationale te Alfousseyni Sylla jiite ko li may wax ne ko xale la ci at mais mag la ci responsabilité bi nga xam ne ni sëriñ bi jox na ko ko mag la aussi ci responsabilité bi nga xam ne ni tey ñii ànd ak moom ci association bi tey yëkkati nañ ko jox ko ko ci kàttanu sëriñ bi kon nag buñ jub see weer wi na woon foo woon rek mooy la sëriñ bi daan def nee na su ma ko wàññi su ma ko yokkul duma ko wàññi te dama ko fas yéene yokk souvent dañuy avancer ay somme soixante-dix millions quatre-vingts millions cent millions dañuy xayma rek mais nee naa ko li ngay def ci weeru koor yow muy xamoo nu mu toll soo pulo xamuloo ko de parce que booy def da ngay def ak yéene booy def da ngay def ak xol parce que yow sa lépp sa lépp diine la sa lépp lislaam la kon nag ci loolu damay jox ngóone mu def une présentation des membres de la délégation qui ont fait le déplacement ak ñeneen ñi nga xam ne bëgg nañ intervenir bala ñoo jox seen président bi nga xam ne moom mooy Alfousseyni la ñu jox sëriñ bi ngoone vous avez la parole. ñu ngi nuyoo rek macha allah di jiital ci nuyoo bi ki nga xam ne moom mooy suñu sëriñ suñu xalifa le roi de la médecine traditionnelle du monde di ko ziar rek di taxawaay taxawaayu taalibe comme niñ ko dénkee suñu bopp rek ñaan yàlla yàlla bàyyi ñoo moom ba ici repose ba keroog àjjana di si di ko nuyu di ko ziar di ko yeesal suñuy njëbbal ci saa su nekk waaye nag di nuyu ki nga xam ne ne macha allah mën naa ne moom mooy jëwriñu taalibe yi muy kan madame Sow Lareen tey nag mu am teewaay bu rafet mu rafetal ko ginnaaw taalibe yi dañuy déplacé wu di jàkkaarloo ki nga xam ne ne moom mooy boroom këram macha allah moom it muy taalibe mën naa ne moom mooy jëwriñu taalibe moom tam mu daal ci am teewaay bu rafet tey nag mu daal di ñëw bokk si bokk ñun plateau bi ne kat macha allah kon koy man maay seen i jëwriñ macha allah damay ñëw assister lii teewaay bi nag teewaay bu rafet la doyen wax nga ko. boo dee ànd ak nit mu yëkkati ay millions yu bari dara ñor ko lu dul ramadan dara ñor ko lu dul yàlla ak yananti bi macha allah ñun nag ñu nekk ay ndaw doon taalibe yàlla def nag comme ni ñu ko waxee dañuy boole suñuy déem ak suñuy daqaar suñu doole bariwul waaye yàlla def na ne mbëggeel gi ak cofeel bi te ku ci nekk rek ci ku fi toog rek am na rek loo xam ne alaaji Thierno Moule saw jëflante na koog yow ci wàllum baatin ci wàllum xam-xamam am na lu bari loo xam ne def na ko ñu bokk ci association Daaru Laay bi nga xam ne moom mooy association Thierno Moule saw nga xam ne taalibe yi nga xam ne ñoo bëgg Thierno Moule Sow dénk ko seen bopp ñi mu jëflante koog ñoom jëflanteeg seen yaay jëflanteeg seen papa ñi ñëw sopp ko te yàlla tax ñëw dénk ko seen bopp nga xam ne Alseyni Sylla mi mooy suñu président te moom moo ko jiite. comme rek ni ma ko waxee Oumy Ndoye macha allah la grande journaliste nekk journaliste en tant que taalibe nekk ci Daaru Laay ñu ne dañuy gis bu weeru koor jotee lu suñu sëriñ di def ah amuñu ay millions amuñu ay milliards amuñu nag lu luñ ko mën a jox loo xam ne dina sut li nga xam ne ne moom mooy kawe kawe njortam waaye nag macha allah ñun ay taalibe te ay ndaw la dañuy dajale def suñuy déem ak suñu doqaar lu ñu am sànni ci suñu pot dajale ñu ne dañuy gis kaas yi ñuy jënd ak euh, cafetière yi ñuy jënd ak café yooyu yëpp ñun nag doon nañu ay taalibe ak mburu yi ñuy jënd par ngoon rus nañu ñëw toog fii doon ay taal bi di ko laaj suñu sëriñ naan ko sëriñ kaas jeex na sëriñ café jeex na café musuwaar jeex na yooyu yëpp rus nañ ko ñu nag waxtaan seen biir bi ñu waxtaanee ñun ñëpp suñu biir ñu ne dañuy xool yàggul nag ci diirum ñetti weer la ci biir ñetti weer yooyu dañ ko dajale booleeg lu ñu am dajale ñu ne loolu de dañ ko bëgg a def waaye balaa dara ñu ko ci def dañuy ñëw jëm ko ki nga xam ne moom mooy sëriñ jëbbal ko suñu wasila won ko ne moom fu mu xàcc macha allah dañu war a dóorandoo moom ndax moom mooy suñu sëriñ ndax millions yi muy yëkkati di ko jox su askan bi kon nag suñu dërëm ak suñu déem ñun ñëpp nag duñ ko xeeb balaa loolu nag dañuy jël nag ki nga xam ne ne bu doyen moom mooy président team organisation te gis nañu ci li nga xam ne moom mooy ziar bi seen ji yu ñu defar ñu am ci taxawaay bu rafet ah lépp rek ci kanamu Alseyni Sylla kon nag damay jox kii nga xam ne moom mooy Oumy Ndoye nekk la grande journaliste nekk taalibe nekk journaliste ci kër gi moom laa jox kàddu gi rek su ko defee mu joxe explication yu jox rek taalibe yi fi nekk yëpp ku ci nekk war nga cee sànni sa grain de sel te ku ci nekk am na lu sëriñ bi jëflanteeg yow Oumy Ndoye salaamaaleykum. waaleykum asalaam soxna Ngoné maa ngi lay nuyu di nuyu mbooloo mi yëpp waaye di jiital ci nuyoo bi suñu sëriñ. sunu xarit sunu wasila alaaj mu la Sow borom kun fayakun ndax tey jii moom moo ñu dajale fii di nuyu laareen moom mi nga xam ne moom la ko yàlla booleel muy euh, ndayu daara ji euh, daal di tëddee jaaxaanaay nag uuf ñëpp vraiment bu rafet ñu koy ñaanal moom tamit yàlla na jàmmam yàgg yaayu Prince Moule sëriñ bi ñu ngi lay nuyu di la ziar di feddali sunu njébal ak sunu taalibe di nuyu président Alseyni sila ndax euh, moom moo ñu boot ci Daaru Laahi national tey jii nag nu ñëw fi ci sunu turu taalibe ndax yàlla daf ñoo boole euh, ñu bokk pas-pas di fi tase ay at di def sunu àddiya doole su weeru koor ñëwee di liggéey ñu xool ne nag weeru koor gi liñ ciy dépensé dafa bëri lool te yërëmoo sa bopp lu jeex nga jënd dinga jënd jënd jënd jënd jënd ba ñu nag ñu ne joxe àddiya doole doyul dañ ciy delli àddiya pas-pas ndax mu xam sunu pas-pas ci moom fan la toll ak sunu bëgg ak sunu yéene ñu daal di nag dañuy dajale ndax mënoon nañu ku nekk gàddu àddiyaam indi waaye gannaaw mbooloo mooy doole te nag ñu ne nañu booloo ñu daal di dajale sunu àddiya euh, dajale nag euh, bëri na bëriwul ndax mille francs la waaye. Euh, sunu yéene ëpp na loolu ñu dajale ko nag si diiru ñetti weer tey jii nu ñëwoon di waxtaan lan lan ciy def ñu ne comme sëriñ bi mu ngi fi te mooy sunu kilifa mooy sunu wasila na nu ñëw wax ko ne lii la ñu am lii lan ci fas yéene def mu wax ñi moom lan la si bëgg te li mu bëgg rek incha allah loolu lañ ciy def sow kon nag euh, ñu lay gërëm di la sant di la wax ne nag tamit ci ndigal lañ ko defee woon ñuy sant yàlla bu baax bam ñu mayee ba nu mottali sunu yéene te it bu dee ndigal li wéy na incha allah année prochaine ah ñaan nañu yàlla nga ñaanal ñu ñu wàccee fi nag tonu ceeb loolu la ñu bëgg nga ñaanal ñu ko bu dee mën naa nekk am nañ ci ndigal incha allah waaye nag lii daal ki diiru ñetti weer lii daal la ñu indi fas yéene jàpp ci taas yeeg mouchoir yeeg yi nga xam ne dang koy jënd te yërëmoo ci sa bopp te ñun ñu yërëm la lool bu ñu sañoon nag ñoo koy jël lépp waaye xam nañ ne doo ko nangu. ndax sa waay ak sa xarit di yàlla ak yonent bi ñoom ñoo xewle te loolu moom doo nangu kenn ëppale la ci ñu lay ñaanal rek loo mën ren bu déwénee yàlla na nga mën lu ko ëpp social bi ngay def yàlla na ci yàlla fay yiw waaye yàlla na ko yàlla di yokk ñun say taalibe ñu ànd seek yow rek di ci jàpp di xàkkindoo di doorandoo saw jërëjëf. ma jéggal kàddu gi kon na président al Alseyni Ah, waaw euh, kon su ko defee bras président Alseyni dañuy jox rek mbooloo mi ñëpp ñu toog rek yaakaar naa ne ay taalibe lañ ndax ku ci nekk nag dangaa def déplacement dérangement am yëg-yëg ci alaaji Thierno Moule Sow te ku fi toog am na loo xam ne alaaji Thierno Moule Sow jëflante na koog yow comme nag kilifa la dafa toog ak ki nga xam ne mooy madame Sow laareen du ñëpp ñoo ñëw sax ñu ànd ak suñu góor ak ñëpp ku ci nekk dañ lay jox kàddu rek ñu bañ a guddal rek waaye wax sa yéene ki nga xam ne moom mooy ci Thierno Moule Sow ñu daal di jublu rek ci ki nga xam ne moom mooy Aïta Moule balaa ñoo jox président moom mooy mujjee ñu jox sëriñ bi mu tëj mu nekk ki nga xam ne macha allah muy taalibe nekk ci kër gi ndax sëriñ bi am na lu bëri loo xam ne jëflante ne woon na ko ci moom wàllum wér gi yaram wàllum salon am macha allah fu mu toll nii mi ngi sant yàlla bu baax a baax ci ci gémiñu borom moom lay la la dàqee kon nag Aïda Moulé ñu ngi lay nuyu di ziar. waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu sama sëriñ sëñ Thierno maa ngi koy nuyu bu baax di ko ziar di nuyu laareen tam maa ngi koy nuyu bu baax di ko ziar di nuyu mbooloo ñu fi teew ñëpp mule mule yi maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar waa di rafetlu rekk liñ fi dajalewaat waat man moom wax mënuma ko waaye kontaan naa torop torop torop. <laughs> waaw Aïta dafa tële wax macha allah Aïta gis nañ la yow tamit nga daal di bokk ci association bi nekk fi membre ngay ñëw chaque jour ci weeru koor gi ci àddiya doole ba ba ngeen inspiré pour cotiser pour ne li ngeen di def fii ci kër gi di joxe ndogu loolu du ngeen koy teggi sëriñ bi yéen koy defal seen bopp kon loolu lan nga ci yëg waa dañuy jéem rek sëriñ bi lim ñuy won pour ñu mën di def social. parce que social bi moom moo ci jiitu. lu dëgg moo wane yoon bi kon àddiya boobu ñun dañuy mën di jéem rek jàpp ci kaas yeeg yu demee noonu mais mënuñoo def lépp. ñun amuñu lu dul sëriñ bi. sëriñ bee ñu jaral lu ne man di moom ma jaral lu nekk maa ngi nii aw ma benn jot maa ngi nii di doog a wàcc léegi nii billaahi ma koy sant bu baax di ko gërëm di ko ñaanal bu baax a baax te xam ne koor gi ñëw na te macha allah man koor gi dama damay dama ciy kontaan trop su may ñëw fii di séddale ndogu ci tali bi billaay dama ciy kontaan trop nit si di ñuy ñaanal te kenn waralu ko ku du sëriñ bi di ñu won yoon bi man mënuma sax wax sama xol dafa sedd maa ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax waaw macha allah mi ngi noonu am na solo mu nekk Aïta macha allah moom it euh, salon bi gis ngeen tolof tolof yu bëri amoon na ko waaye bu mu jëflanteeg alaaji Thierno Moule Sow ginnaaw ba mu ko fajee ci unité 19 ba tey mi ngi nekk di ànd ak Thierno Moule Sow te yàlla tax dañuy ñëw rek ci kenn ki nga xam ne moom mooy Pa Moussa ju nekk suñu góor macha allah nekk ci team organisation di taalibe sëriñ bi moom tamit nekk ci ànd ak pas kon nag Pa Moussa ginnaaw ba relation nga am ak sëriñ bi bokk ci team organisation ndax yow tamit jàmbaar bisu Thierno Moule saw bu xew ji dañ lay gis doo toog doo taxaw bu programme amee ci kër gi kon Pa Moussa ñu ngi lay ziar. Ah, asalaamaaleykum delloo ziar ñëpp di sant sëriñ suñu wasila Alaaji Thierno ah, su ma ko xamee am na tam benn waay moo taxoon ma xam ko mu kii naan euh, Gora Sall waaw ah, boobu léegi nag euh, maa ngi ci maa ngi ci man su su ma su ma nee waaw rek damay dem ba jeex man noonu laa mel donc ma gis ci moom lu mu jikko yu man yu ma kii yu yu yu kii si yu ma yu ma yu ma kii quoi waaw jikko yu ma doy voilà ma ci jàng jàngal ñu aussi euh, euh, sama wolof yi nag moo leeru la <laughs> ndax joolaa la <laughs> yàlla yàlla ñu woon ak yonent bi donc may ñaax rek ñëpp ñu ci ñu roy ci tànkam comme ni mu koy ni mu ñu ko jàngale euh, mu ñaanal ñu aussi euh, am am bi am mën-mën gi yokk waaw ba ñu mën a sañse ni moom moo ni ko xanaa loolu rek moo ci moo moo fa des sañse bi <laughs> mën-mën bi yokk <laughs> waaw sañ sañse bi mu def waaw waaw gis nga ko moom i dafa def ba mu baax ci ziar bi jàkkaarloog sëñ bi macha allah di dugg ko rek xol bi daal di sedd macha allah waaye dañuy ñëwaat ci ki nga xam ne moom tamit kenn la ci taalibe yi macha allah ngeen gis à chaque fois bu wax ci sëriñ bi sax moom mën a yem dafay tooy dafay tuur xéwal ñu gis ko rek ci vidéo yi li sëriñ bi di jëflanteeg moom ci saa ne muy laal la bokk association Darou Laye macha bi nga xam ne moom mooy national te si la jiitu ko soxna laal la ñu ngi lay ziar bi nga ñëwee bi ñëw ñu la fi fekk sax yow it yaa traitement di jëflanteeg weeru koor gi ak li sëriñ bi di jëflanteeg yow ba ñu mën a bokk ci team organisation ba dajal di indil ko sëriñ bi ban yëg-yëg nga am. waaw kontaan rek di nuyuwaat sëriñ bi bu baax ko jox wàccuwaayam di nuyu madame Sow di nuyu mule mule ko di jaajëfal bu baax kontaan si lépp daal sëriñ bi luñ ko indil lu rek dañ ko amul waaw di koy ñaanal weer bi moom weeru promotion la waaw ba tax dañ siy barkeelu rek amuñu lépp waaye ñu ngi koy ñaanal yàlla may ko gudd fan ak wér yokk ko si barke Seydina Mohamed at mu nekk lum si def bu ne mu mën lu ko raw jërëjëf. macha allah jërëjëf ñu ñëw nag mën naa ne koo xam ne ne moom weeru koor bi macha allah da koo téye ci loxoom moo li may wax ci saa su ne muy yaa Seyda Ndeye Marème mu nekk borom diine borom lislaam bokk di sët ci ki nga xam ne ne moom mooy Serigne Babacar Sy Djifa Gueye Demba mi ci Njowaar waaye mu dellusiwaat daal di jébbal boppam ki nga xam ne moom mooy Alaaji Ceerno Mule Saw kon nga xam ne muy yaa sëy daal nekk tafsir alquran kon kooku am na lu mu gis ci Alaaji Ceerno Mule Saw borom baatin bi kon nag mi ngi noonu njaay ma béy ñu ngi lay ziaraat di la jox sa wàccuwaay ñu gis ne même bu dara mën naa ne àddina doo addiyee doole bi ci yow la ñu fekk si ndax yow la ñu gis ñaata weeru koor boobu xamu xamuguma alaaji Ceerno mu la saw yaa ngi dem di jëndi di jënd ay bagage lu na nga nekk ci ki nga xam ne moom mooy lu sëriñ bi xew la sax nga taxaw ci mais surtout nag li nga xam ne moom mooy weeru koor gi ànd ceeg président Alseni ci jënd yeeg ci wàllum defar beeg yooyu yëpp kon nag président président nday kii présidente ñu ngi lay jox kàddu gi macha allah di leen wax sa organisation ak diggante sa Ceerno Moule ak diggante li nga xam ne moom mooy association bi ak li nga xam ne moom nga gàddu macha allah di addiyo doole bi nga ànd ceeg ñëpp lan nga ñuy wax. waaw asalaamaaleykum. maa ngi leen di nuyu mbooloo mi di jiital nuyoo bi ci suñu sang Seydi Sow di ko ñaanal yàlla gudd fan gu ànd ak wér ak jàmm ak sutura mu yàgg fi loolu te ànd ak wér di nuyu madame Sow la di nuyu prince di nuyu suñu yaay ajaratu Mariama kamara di nuyu soxna Ummi di nuyu mule mule yëpp ñi fi teew ak ñi teewul macha allah waa ngoone boo ma laajee ci sang bi damay sawar a wax ndax sama digganteeg moom dafa yàgg ñeenti at la ci ren te dara ñaawul la mu diglante woon ak man xëy na man maa dul man maa matalewul waaye moom la mu diglante woon ak man ba léegi wàccu ko am na ci man yërmande kom ni mu amee ci ñëpp yërmande waaw loxoom itamit du jóg ci man te man maa waroon di am di indi damay ñëw sax ba war a ñibbi alseeni di ma dab naa ma ceerno nee na nga paas ci lii ma ne ko am naa paas waa koor gi nag ñëw bi ma ciy ñëw dama ciy ñëw ak fierté dama ciy ñëw ak xol bu neex ak xol bu laab te su ma fiy ñëw di liggéey su ma ko defoon benn yoon suñu kër mën naa ko tëdd deux semaines waaye yéeg bi may yéeg di wàcc ak lépp lu ma fi def duma ko sax yéeg ndax maa ngi koy def ak yéene goo xamante ni bu ma sañoon damay def lu ëpp loolu bu ma alseeni woowee sax ne ma dara manqué na wala ma ñëw ne ko alseeni dara manqué na ma war a dem xol bu bu laaba xol bu kii bi ma ciy demee kooku mënu mënuma ko expliquer kon dañ koy rafetlu rekk ndax lii ni ko ñëpp waxee dañuy dañuy jéem rekk mënuñu waaw dañuy barkeelu rekk ndax xeeb nañ ko loolu nag ndax moom li muy jënd ci biir weeru koor bi en dehors li muy teg ci taabal bi moo ëpp fuuf te duñ ko ci boole waaw kon dañ koy bàyyi yàlla rekk di ñaan yàlla yal na yàlla gën a yokk yàlla bàyyi ñu fi may ñu wér may ñu kàttan ba lépp luñ ko yéene bépp yéene bu ñu am ci moom yàlla mottali ñu ko man loo rek laay ñaan yàlla waaw. macha allah kon nag mi ngi noonu mi ngi noonu kontaan nañu am nañ mbégte ci saa su dañuy ñëw rek ci li nga xam ne moom mooy Rama Diouf macha allah. Rama Diouf moom it mu nekk euh, taalibe nekk ci kër gi macha allah gis nañ barki Dembo Ndiaye seen kër ca ñaar tali ba kër ga daanoo yaakaar naa ne benn néeg fa des muy néegam ndax lan fata alaaji Thierno Moule Sow yi moo ko secours ci saa su nekk kon nag euh, Rama Rama Diouf ñu ngi lay ziar bu baax di la jox kàddu gi yow tamit gis nañu macha allah nga def ñaar ju rëy ci sëriñ bi macha allah ci jëflante bi mu jëflante ak yow kon tamit ñu ngi lay jox kàddu gi. asalaamaaleykum di nuyu suñu mbokki taalibe yi yëpp ko jiital ci sëriñ bi maa ngi lay nuyu bu baax di la siyaar di la ñaanal gudd fan ak wér yaram di nuyu dem Sow di nuyu ñëpp waa ngoone comme ni nga ko waxee rek sëriñ bi mënumaa wax lépp sax ndax suñu kër gi bu muy daanu photo moo nekk ci buntu néeg bi to samedi la daanu euh, ajuma bi si guddi bi maa ngi la koy nettali sax ma gént ko gis ko nekk ci këram muy ñëw nag mer man naa ah, waa sëriñ bi moom tey kanam bi nu mel nii léegi si samedi bi noonu ay 9h guddi rek ma wàcc si biti dem si bitig bi di wàcc si yeeg escalier yi damaa ñëw toog nii rek pourtant audio nga ma sax ma lay tontu ma ñëw di toog rek toogaguma sax kër gi wàcc kër gi yëpp a wàcc ba sëm buntu néeg bi buntu néeg bi sax doo ko mën a ubbi te foto sëriñ bi mu ngi si eh, eh, buntu néeg bi damaa toog fi ma toog te ni alhamdulilah sant naa sama sama sëriñ Thierno Moulay Sow kenn du moom ak leneen ak leneen am na sama benn dëkkandoo boo xam ne mu ngi nekk ci kaw tiba toog añ ba pare tibal ma añ bi muy ñëw gis nga añ bi dugut si biir néeg bi dafa ñëw si buntu néeg bi rek tuuru yéeg si wut ma tëddaat si sama sama néeg bu ma tëddee noonu nelawuma de ma gént rek gis ñaari muus ñëw ci buntu néeg bi tëdd ak ginaar gu xonq ba noonu mënuñoo dugg ci egsi ci man ñuy mel ni kool kool keres si lañ dañu leen a kole ci buntu néeg bi moo ñu ñu egsi te pourtant du guddi de bëccëg la bëccëgu samedi dama tëdd nii rek nelawuma sax affaire bi mel ni lu may jëneer ma jël muus bi rek xeec nii rek rek sani ginaar gi bëgg rek dugg si néeg bi rek waaye mënu fexe ba dugg si néeg bi sëriñ bi ñu lay sant di la gërëm amuñu sa fay lii tey ma wax sax xaw ma nu ma def ba wax ko sax mënu ma sax wax billaahi saa su ne lay ñaanal saa su ne sant naa la gërëm naa la allah mi ngi noonu marabu intervention bi kon nag macha allah su ko defee rek beneen micro baa noonu président may joxo rek ki nga xam ne moom mooy Assou Gueye macha allah borom addiye bu rëy bi macha allah dañuy jël rek ña ñam rek wax rek li nga xam ne ne allah su suñu sëriñ bi rek ginnaaw addiye doole bi ñëw ndax xam naa ne asugay moom mën a yem buy wax ci sëriñ bi moom départ la am waaye amul fu muy taxawee ndax mbëgg gi cofeel gi ma am ci moom moo jéggi océan Atlantique tooyal Amérique waaye asugay deux moom teg ñi ci compal rek nga compal ma maam maam sëy la ñu tourné compal ma rem fay sàll moomu ñu jox suñu président <laughs> première dame di sant yàlla di julli ci Seydina Mohamed alayhi salaatu wasalaam ah di nuyu la xalif général di ko sargal di ko ziar rek di yeesal sunu njébbal di yeesal sunu ziar di ko ñaanal gudd fan bu ànd ak wér ak wérle di nuyu madame Sow la reine di nuyu soxna ummi mama Mariama kamara di ziar prince mu rek waaw di feddali sama kóllëre rek moom rek li ma war a wax ñëpp wax nañ ko ñuy kontaan rek di sàkku ci yow ñaan comme man daaw bi ma fi ñëw sama yaram neexul woon ren lii am sant yàlla rek la di sant di gërëm waaw ñuy ñaan rek yokk ci kaw ci kanam ñu ànd ak yow rek macha allah di la jaajëfal nag Seydi Sow jërëjëf maa ngi lay sant di la gërëm di sant ñëpp nag jërë ngeen jëf. waaw su ko defee président dañuy jox rek ki nga xam ne moom mooy suñu maman Maam Sey. macha allah mama commissaire moom it nekk bëgg sëriñ bi ba mu jeex macha allah daaw ci weeru koor gi ñoom ñoo fi nekk ndoo woon gis nga ren ni mu ko waxee naan sama tànk yi waaye dangay ñëw de mooy borom du waa jaab yi lu mu waxee rek yàlla da koy def mooy kun fa yakun macha allah kon nag mi ngi noonu. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku ci ne ak santam jiital ci nuyu bi nag suñu xalifa général Thierno Moulay Sow di ko ñaanal gudd fan ak ak wér leen njaboot bu barkeel. di nuyu soxnaam si la reen di ko ñaanal moom it yàlla bàyyi ko boroom gërëm ak nga may ko njaboot gu barkeel maa ngi leen di gërëm yéen ñëpp waaw kontaan naa daal mënumaa wax sëñ bi moom yàlla moo ma booleeg moom yàlla ma booleeg moom saa yu ma amee jaaxle su ma woowee Alseyni ma wax ak sëñ bi mu ne ma bu neexee yàlla loolu sedd dugg ndax am na loo xam ne lépp kenn mënu koo wax maa ngi koy sant bu baax ko ñaanal gudd fan ak wér mu yàgg fi lool mu yàgg fi lool dama manewul wax nag waaye kontaan naa. damaa kontaan. macha allah kontaan na ñu daal di jox kàddu gi rek macha allah Marème Faye Sall moom tam mu nekk taalibe ci kër gi gis nañ ne moom it fukki junneem yooyu nga xam ne da ko fay indi woon sëriñ bi ne ko ñaanal naa la ci demal nga dem liggéey yaakaar naa ne ma nga cay dem Mali di ñëw ma nga cay dem Bamako macha allah ma nga cay dugg Mauritanie macha allah fukki junne ya ma ngay law ba nga xam ne na macha allah kon na mi ngi noonu Marème Faye Sall kon nag mi ngi noonu macha allah Marème Faye kaddu gaa ngi noonu muy jóge na ba Kër ma Massar moom it ci addiyee doole bi danga koy gis ci saa su nekk mu nekk taalibe bu dëggu. maa ngi nuyu sama sëriñ. di ko ziyaara di ko jox sama wàccuwaay bu baax di yéesal sama njébbal ci moom aw mu fayam saa yu ma jaaxee la rek gis naa ko sama wet ma ngi lay gërëm di la sant aw ma sa fay heure bii daaw da daan fekk sama estomac di ma bëgg a rey ma wow koŋ kenn du xam lu may nduróol du ma lekk du ma naan Sidi saw may ñëw ci koor gi boobu laa tàqali ko ak estomac boobu laa tàqali ko ak feebar lu nekk moom ma daan dal ba si barki Dembo Ndiaye dëmm bi ma attaqué woon yaa ñëw def intervention yëkkati jin dëmm bi ba si kaw nga dóor ko ci suuf mu ñuy wax magam ñëw nga boole nga boole kaak jinne yi ñu ñëw ba defal ko bagage macha allah aw ma sa fay xam naa bu du woon ak yow moom xaw ma fu ma jëm ndax maa defar defaraale suñu waa kër kon nag su ma loo xew la ñëwuma ci du ma gor. dama damay bàyyi sama liggéey weeru koor ba weeru koor bi jeex may ñëw di di joxe ah, euh, ndogu nga jaral ma ko nag suñu waa place dañ naan ma yow yow ñii ñi di liggéey weeru koor pour am xaalis pour mën a korite ma ne leen man li may defar alaaj mu lay Sow moo ma gënal xaalis parce que fi mu ma jëlee xam naa ko Sidi Sow am sa fay yàlla mi am fay yal na la yàlla fay sama mag jee tey yaa ko may jàmm may ko salaam borom mara barki démb boo jaay la ma woo ne ma Marème ñëwal ma jasneer ma na ko yow tar nga jasneer kon wér nga mun ma maa ngi sant yàlla bu baax suñu sëriñ bi aw ma fayam aw ma sa fay borom yëpp fay nañ ko fay na ko macha allah te am na yeneen ak yeneen yoo xam ne bu ñëwee moo ko war a waxal boppam macha allah mu ngi lay sant di la gërëm sama yaay mu ngi lay sant di la gërëm sama papa mu ngi lay sant di la gërëm ba si sama maam mi nga xamante ne moom mënu sa dox naan ma yóbbu kër Thierno koor gi damaa bëgg a dem joxe yu ndog ma ne ko incha allah dinaa la indi bu soobee yàlla aw ma sa fay Sidi saw yàlla mi am fay yal na la yàlla fay lépp lu ma am suba ba ngoon jot dinaa ko bokk ak yow lépp lu ma narta bokk ak yow yàlla bu mu ñëw ndax nag maa génnee ci lëndëm indi ma ci leer cent franc sax munum ko woon téye sama loxo bi sama loxo bi dafa bën noonu lu ma laal mu yàqu lu ma yaakaar mu tas loolu yëpp yaa ma ci génnee saw tey bu ma téyee million yow yaa tax ma téye million ku woon téye cent franc million kon kooku boo ko toppul doo gor jërëjëf Seydi Sow jërëjëf awma sa fay jërëjëf Marème kontaan nañu kàddu yi fi taataan yëpp macha allah am na solo dañuy ñëw na jox kàddu ki nga xam ne macha allah moom mooy suñu président waaw Adama da nga bëgg a wax kon ñu yox la kàddu gi rek nga jege si moom tamit mu ngi noonu gis nañ ko bi mu fi ñëwee yàggul waaye nag am na fi taxawaay bu am solo ci kër gi danga koy gis muy daw rek jàmbaar la macha allah kon nag Adama ñu ngi noonu di la jox kàddu gi rek ak clinique bu bees bi macha allah mi ngi fa moom it jàmbaar nga macha allah nag Adama ñu ngi lay jox kàddu gi binaa bi nga ñëwee teewee li bokk ci taalibe yi waaw maa leen ziar di leen nuy du nuy suñu sëriñ Thierno Moulay Sow ak madame Sow laa leen di nuyu ñëpp ñu fi nekk ñëpp maa leen nuyu di leen ziar leen jox seen wàccuwaay lu baax bëri la di. waaw ah, di la wax man lu ma indi si kër gi du du hasard quoi wallaahi du hasard parce que man Nouakchott laa nekkoon fa laa nekkoon fa laa doon liggéeyee yàgg naa fa trop. waaw léegi sama rakk dafa feebaroon dafa àndoon feebar rab mu yàgg si moom trop mais musu musuma ko xam léegi boo ma léegi sama benn xarit boo maa ngi liggéey si benn usine quoi sama benn xarit ñëw si man ni ma am na benn benn sëriñ bi wax Thierno Moulay Sow mi fële nekk Dakar waa léegi xaar ma bind la turam léegi ngay seetaan ay vidéo may seetaan vidéo am 4 yaay woo ma téléphone ni ma sama rakk dafa daanu man daal moo ko dal mun ma ay rab la ma loolu kañ la mun ma yàggul li ma lu léegi ndeka vidéo yi ma doon seetaan moo tax ba ma mën a xam sama rakk bi dafa feebar wallaahi léegi ma ñëw man ko lal ma wax dal mu ne ay rab la waaw léegi moo ne sama yaay li li kañ la ko dal léegi mun ma li boobu ba mu ko dalee yàggul temps yi rek la xaw ma léegi léegi ma jël pot ma def si ndox ñëw euh, def si fatiha qul allahu ahad qul a'uuzu bi rabbin naas def si ñetti turu ceenno yi mais su ma ko sottee si kaw xale bi xale bi day say naan wuy sa wuy yaa may lakk bu ma sotti ndox mi su ma ko sottee si kaw xale bi sax wala mu mu daanu tëdd du mën a jóg léegi mu instant dafa placer mënuma jóg léegi ma defaat même chose léegi mu jug taxaw. waaw si ñetti ceen mu lay saw yi wallaahi man ti ma nekk ma nekk Nouakchott yàgg fa munu ma ma dugg Sénégal mu ma dugg Ndar bay bay dugg daal sax xam nga léegi su léegi souvent man amoon numéro Thierno mais chaque instant dama koy woon nekk Thierno ñaanal ma damay waaj a ñëw kii waa Sénégal mun ma yàlla na yàlla yombal lool. waaw te man nekk naa Nouakchott yàgg naa fa nekk naa fa ay at at yàgg fa wallaahi yàgg naa fa mënu mënu ma dugg Sénégal bay dugg Dakar gaa léegi du souvent boobu ma koy dégg naa kenn ñaanal ma pour ma dugg Sénégal moom yàlla na yàlla yombal yoon bi lool xam nga wallaahi si la saa yu ma ko woowee nag mu wuyu mu ñaanal ma léegi si la lu ma ñaanal lool si la xëy bés rek ñëw boo maa liggéey suñu benn benn usine quoi mi ngi nekk Nouakchott foofu benn usine dama ñëw suñu patron mag liggéey bi mun maa ndax la ma ko noonu damay dem Sénégal si laa takkee samay baax ak sama soxna yëpp ñëw ñëw fii ñëw ñëw kii ñëw Dakar fii direct ci moom fii léegi bu mu ñëwee ba fii mais bu mu ñëwee fekk ko fi ñun ma dafa xaw ma dafa voyage léegi ci laa toog fii cinq jours ak affaire Alicen si la wax dafa dafa dem daa voyage ga léegi ci laa delluwaat Sénégal ci laa delluwaat Ndar quoi léegi bu ma toog Ndar boobu maa ñëwul ñëwoon fii pour yoroon xaalis pour ñëw faj faj waaye quoi def ay ñaan affaire sama jabar ak sama doom léegi bu ma diir ba bu ma delluwaat ndar sama xaalis mu yor xaw ma sax fu mu jaar. wallaay xaw ma sax xaw ma sax xaalis fu mu jaar. yàlla yàlla xam na loolu. waaw boobu boobu jëndee xam ne def waaw loolu la. wallaahi. macha allah kontaan nañu mu nekk sëñ boo xam ne macha allah encore premier jour ba ma ñëkkee dem si kër ga liggéey foofu. ba ma ñëwee guddi gi tëdd fii ñu won ma si gént may may wàccu ay xottu bu teel. sauvé nga de sauvé nga. wallaahi. cay liggéeyal maa ngi tëdd maa ngi tëdd di nelaw. may wàcc xotu butéel ak ay xeer. premier jour ma dem foofu ñëw tëdd ñëw fi guddi. si clinique bi. yàlla yàlla xam na loolu. ay xottu butéel ak ay xeer nii ma koy wàcc man man man man la laa mën a jëlee ay xottu butéel di ko wàcc nii sama loxo du dagg xam nga léegi maa na ne benn xarit noa la woon quoi ñun ma lii ñun ma lii si lekk lañ ko defoon. ñun ma liggéey bi si lekk lañ ko def. liggéey moo la topp yàqale def lu nekk sa yaram. wallaahi. premier jour mu ñëkkee foofu. wallaahi te joxoo ko dara. wallaahi. wallaahi. kon nag Adama mi ngi noonu témoignage bi am na solo. te te dinaa fi encore tamit gis fi yonent sallallahu wallaahi laa leen wax. kenn moom borom barrière mooy waayam de. waaw te dinaa di nelaw. maa ngi nelaw ñi ma toog ba ñi yéem ñun ma xool kaw ma xool si kaw gis yonante bi mi ngi ñëw si ko benn fas bu weex tàll mi ngi sol lépp lu weex si kim baa gudd mi ngi muuru mais man boobu maa ngi yegg si oto mais maa nit ñi ñu ngi wër maa bu loxo sama bopp naan allahu akbar mais nit ñi ñu wëree ñu ngi naan ñu ngi yuuxoo ñoom mais man maa génn si bopp naan allahu akbar allahu akbar wallahi fii te loolu lépp fii laa fii la amee loolu mbégte la nag daaru laay nga nekk kër yàlla kër yenant bi kon nag Adama kontaan nañ bu baax mbégte la gis ngeen nga moom tamit li nga xam ne ne mu nekkoon foofu te Mauritanie daal di fay coincé mënul ñëw gis ngeen témoignage yu rafet yi nga xam ne moom la def ci sëriñ bi kon nag Adama ñu ngi kontaan nag bu baax bu baax a baax ci yow su ko defee nag ñu daal di jox kenn ki nga xam ne ne mooy le secrétaire général Alseni Silla macha allah nekk suñu président ñun ñëpp nga xam ne ne macha allah toog bi yëpp moom moo ko waral macha allah ndax boo gisee team organisation kon nag daarulaay bu national moom moo ko jur bi nga xam ne ne Alseni Silla moom moo ko jiite kon nag ñun ñëpp ñu daal di toog devant ñun ñëpp ñu nekk ay taalibe waaye nag mën naa ne yow yaay jëwrinu taalibe yi fii ñu toog nii macha allah ndax yow yaay suñu président kon nag ñu ngi am mbégte ak kontaante ginnaaw taalibe yi gis nga lii ñu dajale macha allah bokk rek ñun ñëpp association Daaru bu Sénégal moom mooy suñu yaay moo ñu jur macha allah mais ñu dajaloo rek toog suñu rukk ñun tamit di nas ak boole suñu déem suñu daqaar rek daal di koy indi ñëw indi sëriñ bi lan nga wax loolu ginnaaw taalibe yi bi ñu toogee ak membre association bi. Ah, waaw maa ngi nuyu yëpp. di jiitoo nuyoo bi suñu sëriñ suñu wasila El Hadj Thierno Moule Sow roi de la médecine traditionnelle du monde. le kin au kin le marisal borom Allah Muhammad borom baatu baatin borom kum fay kum borom sant samaru si buuru jinnay macha allah di nuyu mule mule yëpp di nuyu la princesse madame la reine di ko ziar di ko ñaanal jàmm di nuy prince Moulé le futur des rois di ko ñaanal gudd fan bu ànd ak bu yaram yàlla yàlla surtout génération yëpp yàlla yàlla fu mu fekkee papa yàlla na romb foofu si barki ñetti Thierno Moulé Sow macha allah di nuyu association Thierno Moulé famille Daaru Laay pour le développement di ko dale si vice président bi ba suuf bàyyiwuma si kenn di nuyu association Thierno Moule Family Daaru Laay bu international di ko dale si président bi Ousmane Samsi Samarousi eh, ba suuf bàyyiwuma si kenn di nuyu association Sénégal bi Moule di ko dale si présidente bi Sokhna Mariatou Mané eh, ba suuf bàyyiwuma si kenn di nuyu mbokku taalibe yëpp mbokku jullit yëpp maa ngi leen di nuyu di leen siyaar di nuyu aussi ñi nga xamante dañuy seetaan la TMS TV donc di sant yàlla bu baax baax di julli si Yonent ti salallaahu alayhi wa di sant suñu sëriñ eh, di rafetul eh, jotaay bi macha allah ndax jotaay mbette la xam ngeen ne vraiment gàmmu bu mag moo ñu war a gan si fan yi macha allah mooy weeru koor weeru koor na su ñëwee xam ngeen ne suñu sëriñ bi macha allah te eh, jël na motaayam ba mot sekk macha allah jël na disposition am macha allah ànd si ak macha allah taalibe yëpp donc ñu taalibe yëpp. am nañ ne vraiment suñu sëriñ bi pare na macha allah ñun tam vraiment e takk nañu ba mu dëgër ñu àndal ak moom macha allah moo waral jotaay bi eh, vraiment di sant la présidente Sokhna Oumy eh, ki nga xamante moom laa jiitale la team d'organisation di sant aussi Sokhna Ngone Dia macha allah ki nga xamante moom mooy porte parole bi animatrice. Eh, di sant ñi fi nekk yëpp ñoom Sokhna Astou Guèye ñoom Marème Sall ñoom Yaay Seydande Marème le deuxième vice-président présidente macha allah di sant aussi vraiment eh, Seck Moussa Diédiou macha allah Sokhna Rama Diouf ak ñi fi nekk yëpp eh, Aïta macha allah commissaire maman commissaire aussi maa ngi koy sant bu baax a baax macha allah waa di nuyu ñi fi nekk yëpp vraiment di kontaan bu baax a baax macha allah. donc yaakaar naa ne sëriñ bi lancé naa appel su ñun taalibe yëpp macha allah weer koor bi ñëw na eh, na ñu fekkee ñu dajale eh, sukkar koor yi nga xamante dañ ko ko indil ñu teel a ko indi ndax moom vraiment eh, génn na budget am ba pare teg ko à côté xam ngeen moom yaakaarewu ñu ndax ku génne un million kooku vraiment ku génne cent million kooku xaaru ku génne un million parce que lu ñu dajale dajale dajale yaakaar naa ne su rombee million du weesu foofu macha allah te génne na plus de cent millions teg ngeen ko léegi mu ne eh, ren dina ëpp loolu dina am li ñu si teg kon kooku yaakaar ñun dafa bugg rek ñun taalibe aussi vraiment ñu barkeelu macha allah si weeru koor bi donc loolu moo waral woote bi. donc eh, li ñu dajale fii nam loolu ça fait trois mois comme ça ñu ngi ko doon dajale waa team d'organisation mais non bu association national bi bu nga xamante vraiment boobu taalibe yëpp eh, ñoo fi bokk. Eh, boobu xam naa ne ñu ngi si yoon bi eh, xam naa di yegg si incha allah saa bu yegsee aussi dinañ toog comme jotaay bi aussi vraiment ñu jokkee ko macha allah lancé na appel si taalibe yëpp nañu fekkee ñu dajale addiya bi très urgence rapidement ñu dajale ko incha allah ñu ñëw jëbale ko suñu sëriñ bi eh, xam naa ne instant ni taalibe yëpp ñu ngi koy dajale macha allah am na taalibe aussi yi nga xamante vraiment nekkuñ ci biir station mais dañoo bugg a sëriñ boo mu macha allah ñoom tam ñu ngi préparé seen addiya yi macha allah seen sukkar koor ñu ngi koy préparé ñaan yàlla suñu borom rek yàlla yàlla motal suñu yéene bi si barke yàlla ak yeneen tamit ak ñëpp Thierno Mouleye di invité aussi taalibe yëpp yéen naa ne weer koor mu ngi ñëw macha allah comme ni ma leen ko waxee sànq ñu dajale sukkar koor bi rapidement ñu ñëw jëbale ko suñu sëriñ bi ñu xam ne ne aussi vraiment waajal doole bi aussi mu ñu xaar comme d'habitude rek macha allah chaque année macha allah ñu yëpp dañuy bàyyi lépp lu ñuy def macha allah ñu ñëw daggu si mburu bi diw si beer so mayonnaise su eer ndugg jotee allah ñu fekkee ñu joxe ko su eer ndugg yëpp vraiment ñu teew si ñu ñëw ñu joxe ko ak yéene ak respect macha allah donc taalibe yëpp takk nañ ba mu dëgër incha allah ren mooy eh, gën a gën a gën a gën a bëri macha allah ndaa taalibe gën nañu yokk taalibe gën nañu yokk vraiment ñu ànd ak suñu sëriñ macha allah xam ngeen ne suñu sëriñ aussi vraiment. ay millions yu bare bare la génn pour askan bi macha allah bi passé gis ngeen ne génn na plus de cent millions def ko si jàmm yàlla mooy saaku ceeb mooy diwlin mooy kafe mooy meew mooy tàndarma loo kalaat luy dem ci weeru koor mu woote jàmm yàlla ñëw fii daje macha allah mu waru mbooloo bi eh, ñaari yoon macha allah mu mu julli ñaari rakk ci diggi tali bi macha allah ndax yéem am na ne vraiment sénégalais yi sonn nañ démb sax am na groupe bu bare bare bu nga xamante dañoo jóge ba Parcelles Assainies ñu ñëw fii fekk si ma mu ne ma Alseyni ñëw nañ tey pour bindi si affaire bi eh, ndax xam ñu daa rampi insayni yi feesul ma ne ko ah jotaguma ko commencé guma bindi insayni mais incha allah yéen dinaa leen si bàyyi xel bu baax a baax eh, tay saa bu ñu koy def aussi dinañ def annonce eh, mbokk jullit yi yëpp dégg ko incha allah bu ñu koy jóge aussi yëpp dinañ si teew ko te képp ku fi teew incha alla te doo ñibbi te ko amoo macha allah gis ngeen ne ren sëriñ bi jokkoon na dund bi boo mu jeex mu am ñeneen ñi nga xamante amaguñu dund bi mu génne aussi millions yu bari et vraiment jokk leen tasaar leen jokk leen ku nekk am lu mu ñibbee si këram kon vraiment xam ne loolu eh, loolu yëpp su ko yàlla fayee macha allah loolu vraiment du ñu wax ne sax ay ay ay kër kër lay nekk ay cité si aljanna lay am macha allah ànd si ak taalibe yi ñi nga xamante comme lu ñu ko faral di waxee rek taalibe yu dëbbu yu dëggu yi macha allah fekk du ay coupé collé yooyu noonu macha allah vraiment <laughs> di remercier yëpp macha allah donc taalibe di leen gën a ñàkk rek eh, xam ngeen ne vraiment association bi eh, ñu yëpp am na yi nga xamante vraiment du Sénégal fii lañ nekk am na yu Mauritanie am na yu nekk Côte d'Ivoire ainsi de suite ainsi de suite ak gambi yooyu yëpp ñu ngi ci biir ak si réseau yi sous réseau yi donc comme mbooloo mooy doole macha allah ñu yëpp suñu booloo ñu nekk benn ñu mànkoo macha allah kenn rek su defee ku nekk su defee tuuti rek day day bari macha allah ñu ñëw jëbale ko suñu sëriñ comme man bu doon sama sago moom macha allah ñu yëpp dañu booloo ñu mànkoo nekk benn macha allah ñu dajale adiya bu ñuy dajale macha allah ñu booloo ko benn yoon ñu ñëw ñu jëbale ko suñu sëriñ macha allah vraiment di sant yëpp naan di gërëm yëpp di ñaanal yëpp jam macha allah. voilà donc dégg ngeen kàddu yooyu yëkkati. donc on fait mi remise symbolique bala ñuy jox sëriñ bi kàddu gi mu waaw aja voilà ngoog joxal sëriñ bi ñu def la symbolique voilà kon nag euh, gis ngeen enveloppe bi nga xam ne nii moom la moom la taalibe yi moom la ñu collecté depuis trois mois ñëw yëkkati ko li may wax rek ne sëriñ bi du xeebal kenn lenn mais la particularité ci jataay bi mooy fonk bi mu fonk taalibeem ndax defe naa ne présidence su madame Sow rek illustré na ko tey du dëgg kon nag loolu mooy wane ne sëriñ bi am na fu mu leen teg te yaakaar gi ngeen am ci moom bu soobee yàlla dina ko matale te yàlla du ko tas kon nag sëriñ bi taalibe yaa ngug ah xam naa ne yàlla jox na la wërsëg woo xam ne nii tey li nga mébét ci koor gi pour def ko ci doomu aadama yi di nga ko mottali waaye nag ñoom tamit seen devoir lañ def mooy dinañu yëkkati ñoom tamit ñëw barkeelu ci li nga xam ne yow yaa ngi koy joxe kon nañu jox la kàddu nga tontu leen. macha allah alhamdulilahi rabbil alamin a unju billahi mina seytaane rajim wala hawla wala huwata illa billahi azim gannaaw bañu ñu sante suñu borom ñoo ngi julli ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam ñoo ngi nuyu mbokku jullit yi di nuyu mbokku taalibe di am kontante ak mbégte lool tey di fi toog macha allah ak toog ak di nuyu madame Sow la reine macha allah moom mi nga xamante ne vraiment tey daf ma gunge si ànd ak man ñëw toog jàkkaarloog man macha allah li ma koy waxee suma jinne bi macha allah doon jigéen ju baax vraiment mu fekk fi aussi ay taalibe yi baax ñu ma bëgg. waaw kon nag ñoo ngi nuyu ñëpp di nuyu ajaratu Mariama Camara di nuyu soxna ummi vraiment di kontaan bu baax a baax ci jotaay bi doyen ndax nag taalibe yi dañu ma bëgg ñii ci lii lañu dëkk ak man barki Dembo Ndiaye asu soxna asu Guèye la fi jóge gis ngeen lu mu fi indi loolu mooy euh, clinique bi moom euh, mun ngeen ko ménager at doo leen jënd omo doo leen jënd dara macha allah Marème Faye Sall gis ngeen teraanga yu mu fi indi moom it lu ne lay def soxna Ayta. barki Dembo Ndiaye la fi indi tichi jasinaire indi fi xaalis bu bari macha allah bu ma limee demee juum soxna ngoone macha allah moom tamit gis ngeen li def teraanga mu def macha allah daanaka yéen ñëpp muy euh, soxna muy euh, yaa soxna Ndey Marem moom mii day indi addiya day def teraanga fii ñëpp dañuy def teraanga muy soxna Oumy aussi macha allah macha allah teraanga yi gis ngeen lu muy def muy soxna euh, Rama Diouf. macha allah yaa Zeyda euh, soxna la gis ngeen barki Dembo Ndiaye jasineer bu ma jox fii bu rafet ak xaalis bu bari macha allah euh, gis ngeen aussi Moussa moom it ndeysaan doon taalibe bu dëggu nag ndeysaan euh, góora moo moo moo ko fi indi góora moom jinne yi ñoo koy ruube borom dafa bëri jinne barki Dembo woo na ma ndeysaan góora moom it taalibe la bu ma bëgg sax waaw mais jinne moom dafa bëri jinne usine la parfois jinne yi ñoo koy ruube góora sàll moom tamit ndeysaan ku ma bëgg la. moom moo ko fi indi moom it ba mu jàppee ba tey bàyyiwul moom Moussa ndeysaan euh, macha allah kontaan na bu baax a baax aadama euh, aussi gis ngeen ko noonu jóge ba Ndar ndeysaan euh, bëgg sëriñ bi ñëw bëgg liggéeyal sëriñ bi ndeysaan bàyyi léppam doon liggéey ñu koy fay mu bàyyi loolu mu ne day ñëw liggéeyal ma xam naa ñu bëri dañ naan ah yow yow yow yow yow pertement la déedéet pertul de Thierno <laughs> mule Sow kenn du ma liggéeyal di perte non <laughs> pertul de pertul de man kenn du ma ñaqal ba pare doon bëlla puy de munul ne non ku ànd ak man dëggu maanaam euh, dëggu gëm bëgg ànd man kenn du la ñee maanaam doo ñee kenn ku la gis da lay ñee defe naa ne loolu leer na ci Alseyni Sylla mi toog président Alseyni Sylla defe naa ne ba muy ànd ak man ñu bari ñoo ngi doon jéem a yàq xelam naan ko yaa ngi ànd ak kii nii nii naa nii naa di yàq xelam tey moom mooy dimbali ñooñu tey di leen jàppale fii lay toog lépp di ko fi fekk lu muy am euh, par weer sax maanaam du laal salaaram kon nitu yàlla nit ku yàlla bëgg nit ku yàlla fonk kooku boo ko liggéeyee lee nga tarbiyu ko da ngay raw say moroom kon nag Adama liggéey bi nga fiy def dañu lay ree de commencement bi dañu lay ree waaye après dañuy da nga leen di dimbali. moom it ajaratu ñoo ngi koy nuyu parce que xamul woon keroog loola mu ne ma man xaw ma sëriñ bi xaw ma xaw ma woon waaye gis naa ne ni nga taxawlee sama doom defe naa ne Ousmane euh, léegi fu ne lay dem di tukki fu ñëw Metsi Metsi international boobu footballeur boobu fu muy toog ci bis yi muy toog. Ousmane Sam Samarouchi bi yooyu lay toog léegi fu na lay dem tukki ci àdduna bi ngir sama barke man mu Moule Sow ak taalibe yi international yëpp bu ñu limee dañuy juum kon jotaay bi tey mbégte laay am di nuyu Kara di nuyu Youssouf di nuyu ñëpp di nuyu doyen soxna Ngone Umm bu ñu limee dañuy juum macha allah Marème fay moom it gis ngeen euh, kontaan la ñuy am ak mbégte vraiment li ngeen ma jox nii addiya bi dafa bari. ndax nag a ah, ne benn tàndarma suñu borom benn tànd benn tàndarma la wax maanaam nga jox ku woor benn tàndarma moo ko gënal nga tabax junni jumaa junni jàkk te lii waxuma la lii de lii de lii lii mun na jënd tonu tàndarma parce que tàndarma euh, defe naa ne kii bi xaw ma euh, carton bi xaw ma dix mille lay jar xaw ma hmm? huit mille lay jaar kon lii mën na am tonu tàndarma macha allah te defe naa ne da ngeen bippe rek wootoo waaw maanaam seen xër xam naa seen xër moo tax ñu ne xaaral ñu def euh, tim tim ko di naka tim tim organisation waaw adiya pasa parce que association daarullahi nationale euh, ñëwaguñu mais ñii ci biir association bi la ñu ne ñu créé defe naa ne euh, soxna Oumy Ndoye yaa ko jiite team waaw waaw team team organisation ñoom ci biir daarullahi national la ñu bokk mais dañu dañu def benn addiya côté mooy moo waral deux cent waaw addiya pas-pas deux cent mille yi nag macha allah dafa mel ni deux cent millions ci man macha allah waaw waaw comme deux cent millions ci man waaw de xeebu ma ko de ndax suñu borom xeebul xeebul benn tàndarma kon nag rawatina ngeen dajale Euh, vraiment di kontaan bu baax a baax euh, yàgg nañ nag ñoo ngi bëgg a yàgg ndax nag déggu ngeen amoon na ay taalibe yu ma nekkaloon mais genn wàll gi ay défaillant la ñu woon moo taxoon ma tas kër googu formé waat beneen kër kër gi nag ba ma ko formé ba tey taalibe yi vraiment macha allah ñoo ngi góorgóorlu kon nag maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal jàmm doyen euh, vraiment Thierno Moule Sow Ah, nitu yàlla laa defe naa ne loolu leer na man suma ma lépp suñu boroom la man bu ma amuloon xam-xam dee naa bu yàgg defe naa ne xam ngeen loolu waaye na gis ngeen weeru koor ni ma ci mel aw ma ci sago ah waaw weeru aw ma ci sago ba ma koy tàmbali sikaab mbaaw la ndeysaan ah ak ay xale ndeysaan di jox ñi ñi ñam ndeysaan euh, ndeysaan maa ngi fàttaliku bu ñu bu weeru koor gi suma ma mbàjju mbàjju xam nga mbàjju dafa lu ma gën a fonk sumay may mbàjju laay jël mbàjju mbàjju lal ko ñu def ci mburu yi daggate ko yii ñu diw ko chocolat yii ñu diw ko bër yii ñu diw ko maynees jël jël mbana def kafe ak meew jël macha allah jël euh, jël yii def café kese yii ñu def meew kese ndeysaan jënd jënd jënd jënd ay sachet ndox seddal ko ba mu sedd guy ndeysaan dugal ko suma frigo side by side boobu maa ko jëndoon un million cinq cent waaw vidéo yi ñoo ngi fi waaw youtube man dama yàgg def lu baax de damaa yàgg liggéeyal suñu borom moo tax yàlla fay ma lim may fay waaw parce que ñu bëri boo koy def naan kii day yàq xaalis kii day nii déedéet yàqu ma de macha allah lépp di waaw waaw ndeysaan gis ngeen bu euh, bu ñu ko daan préparé doyen ndeysaan dagg mbur dagg lépp préparé dama ciy sawar am activité barke alxuraanu karim musuma ndogoo woon suma kër heure ndogu daf may fekk ci mbedd mi daf may fekk ñoo ngi sarwe jàkka yeeg jumaa yi man barke alxuraanu karim man man euh, presque boo xoolee ay ay vingt une euh, kii ay vingt une heure et demi euh, vingt une heure et demi wala vingt une heure laa daan ndogu parce que dañuy wër man du ma ndogu maanaam damay ànd ak ndeysaan temps yooyu dama luyoon benn kalando R4 di ko fay journée cinq mille francs mu wëral ma ci jàkka yi ak ci jumaa yi Sicap Mbao ñëpp xam nañ li may wax di wër ci jàkka yi di wër lépp di joxe su ma demee ci jàkka yi bu ma joxee ñu ne euh, kan mooy joxe lii ma ne ko moom moo ngi kër ga ndekete man maay joxe ma ne leen moo ngi kër ga ñu ne boo demee nga santal ñu ko nga gërëmal ñu ko fekk man la waaw ma def ko ngir suñu borom dañ daan parfois bu ñu tardé ci jàkka yi sax ndax boo demee ci jàkka ji demaat ci jàkka ji parfois mun nga xaw a retard tuuti mais dañuy gis nit ñi di ñu xaar ndeysaan parfois bu ñu yéexee ñëw ñu ne ah gars yi ñoo ngi leen doon xaar de ndeysaan parce que day am ñi nga xamante ne dañuy woor ba weeru koor jot ndeysaan du ñu am lu ñu ndogoo dañuy daw koj ko ci jàkka ya waaw day parce que man mii temps yi ma tollee sama digg doole nekk xale euh, temps yooyu xam nga rek bëgg bëgg réussir bëgg avancé doo bëgg di ndogoo seen kër temps yooyu am na benn jàkk bi ma daan dem si Kambaaw fa laa daan ndogoo dama daan jógee euh, Caaroy di dem ba Sicap jàkka jooju ndeysaan serve naa ko ay ndogu ma ne ndeysaan fii daan fi ñëw di fi xaar ndogu serve naa jàkka jooju ndogu waaw ndeysaan kon euh, lii euh, yokkute la seen sëriñ moo ngi yokku de maa ngi yokk bu baax a baax kon nag vraiment doyen li ñu ma indil bari na yal yàlla yokku leen yal na yàlla aar leen yal na yàlla sàmm leen ci barke yonent bi salaa salaam ci barki guddi gu tedd gii ci barki weer bii muy saxlu Ramadan weeru yërmande weeru promotion ah Thierno Moule Sow suñu borom de euh, li mu ko defal ci weer bi rëy na de ah, waaw weer bii ah chaque at dama koy mën actuellement cent millions yi maanaam maa ngi koo paqueté teg ko côté ba pare am di réservé réservé waaw waaw non fii ñaari fan dañ leen di woo ñu filmer teg xaalis bi ngeen wàññi ba mu mat mu nga mat na ngeen wàññi ba mu mat lépp dama ko ciy def waaw kay aussi euh, waaw lépp liggéeyal suñu liggéeyal yàlla ak yonente bi madame Sow tamit moo ngi waajal moom it dina ñëw moom it dina def addiye ci ci weeru koor gi moom it sama doom prince Moule moom it dana def addiya ndax moom tamit taalibe yi dañ koy jox addiya moom it dana génne ci ñaqam def addiya suma doom parce que yoon bi ma jaar yoon boobu laa koy jaarale moom it am na xaalis am na ay millions yi nga xamante ne moom moo ko moom moom it dana génn man maa nekk ministre de économique am macha allah waaw moom tamit dana ñëw dana ñëw addiya waaw waaw dana ñëw addiya kon nag li ma leen di wax euh, weer bi na ngeen ci profito yéen borom alal yi yéen borom barke yi ndax nag Euh, weer bi suñu borom mooy fayal boppam du yónni de moom mooy ñëw fayal boppam kon nag lépp lu waay am bul xeeb bul ne a ah, man aw ma ay million wala aw ma ay junni du ma def social déedéet ma ne la boo amee sax cent franc jënd ko tàndarma yóbbu ci benn jàkka comprendre ga soo amul nga def addiya doole kon nag macha allah euh, wax bi bu mu bari mbooloo maa ngi fi euh, kontaan nañ bu baax baax di ñaanal ñëpp jàmm di nuyu association internationale daarullahi bi nga xamante ne Ousmane Samsi Samarousi moo ko jiite ñoom tonton Sow ñoom Fabakary ñoom Gallo ñoom ah ñoom Iba waaw maa moo ngi moo ngi préparé ay yeneen affaire moo ngi moom it ñoom Ami Mané suma taalibe yi ñoom Ibrahima Ly ñoom Dikel soo su ma limee damay juum ndax international bi ci kaw ba ci suuf mënuma wax seen tur yëpp mais bu ma nee mule mule bàyyiwuma kenn Amadou Sakho bàyyiwuma kenn kon taalibe yi ñoom it ñoo ngi waaj ndax nag dañu wax ne ñoom kenn ku ne maanaam 200 euros lañu la wax nga indi ko maanaam boo amee lu ëpp loolu nga joxe te am na ñeneen ñi nga xamante ne vraiment dañuy joxe lu ëpp 200 euro te xam nga ne 200 euros boo xoolee 200 euros day nekk ñaata day nekk ay 130 mille benn taalibe bu ne. tey joxe dañuy préparer loolu ñoom it pour joxe ko addiya te loolu la ñu sas taalibe yi waaye day am taalibe yi nga xamante ne dañuy def lu ëpp loolu ndax nag boo xoolee galo euh, macha allah barki demboo Ndiaye rek ci cotisation bi ñu doon def moom joxe na 500 euros plus de 1000 euros la joxe. gis ngeen tamit portable bi ñu doon woote fii euh, addiya bi gis ngeen tamit macha allah ñaama soire aussi jox na ci 600 euros ànd ak taalibe yi. man na mu ma dara taalibe yi ñoo ngi def addiya bu baax a baax waaye nag ñoo ngi gis seen bopp de seen sëriñ namul dara Cerno Mule ko min woni jawdi ko min woni jama ko min woni kaalisi ko min min wonde allah min wonde nelaaɗo ma ànd ak yàlla ànd ak yonente bi waaw dama ànd ak yàlla ànd ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaw kon nag ñu ngi nuyu ñëpp vraiment di kontaan ñu préparé nag weeru koor gi bu baax yéen taalibe ngeen takk bu baax a baax comme d'habitude ngeen ñëw fii ci kër gi def addiya doole euh, macha allah dagg mburu yi macha allah diw ko boor ba mu tooy may ne ak ñoom chocolat ak kurtu carte ak yëpp jébbal ko jaamu yàlla yi waaw kon nag vraiment kontaan nañ bu baax a baax yàlla yàlla def jàmm ci barki yonente bi salaa salaam doyen lii mbégte la ndax nag taalibe yi vraiment ay jàmbaar lañu waaye nag ñu xam ne weer bi yàlla mooy fay de suñu borom mooy fay waaw ah, kay kon nag nañu profité ci weer bi nañu profité liggéeyal suñu borom ndax mu Moule dafa yàgg liggéeyal suñu borom ci weeru koor de dafa dafa yàgg de yàlla nag fay na ma ko de waaw waaw fay na ma ko fay na ma ba wis ma ba wisaat ma wis ndax kuy jàkkaarlu ay jinne gis ngeen léegi li ma xewal bu ma dugg see du ma wax sama bët yi tedd yi bët yi ñu bind allahu muhammad laa naan fixe jinne yi ñu ñuy daal di daanu gis ngeen léegi sax du may wax damay fixe rek jaxraan xool leen rek ñuy ñu daanu mais xam nga ne kooku yàlla yàlla yàlla moo mun a maye. xam nga formation euh, yi jéemoon nañ ma corrompre jéemoon nañ ma corrompre euh, unité 19 waaye mënuñu ma am parce que ñoom it dañu muus dañu am xam-xam de ñoom nag boo leen di wër duñ la faale de ñoom borom bopp la ñuy wër ak borom xam-xam ñu woo ma tir allo euh, mu ne moom mooy président formation yi mu ne moom moo ngi Afrique central mu ne ma am na ay imaam nga xamante ne ay formation lañu am na ay borom xam-xam yi nga xamante ne ay formation lañu maanaam mu wax ma daal mu ne ma Sénégal fii am na ñu bëri ñi nga xamante ay formation lañu. mu ne ma dama bëggoon nga ñëw bokk suñu association euh, franc-maçonnerie et de et de homosexuel maanaam muy wàllu waaw waaw homosexuel hmm, ma saaga ko <laughs> cey saaga ko ma ma ma ma après ma xoolaat ndekete ñoom yàgg nañ ma woo Facebook lañ ma woowee woon Facebook. waaw messenger Facebook. mais suñu borom gis nga soo ko gëmee nga dëggu day ñëw. ba ma leen freiné yàggul ci laa commencé daaneel ay jinne di commencé jàkkaarloog ay jinne di wax ak jinne yi di leen tuubal di leen dugal ci diine l'islam tey bu ma nekkoon ku yàkkamti tey ànd ak ñoom tey sama aduna day yàqu suma alaxira yàqu du ma am yàlla du ma am yónente bi waaw kon nag gis ngeen suñu borom defal na ma lii yëpp kon nag na maanaam bul bul ñàkk ba ñànki bul ñàkk ba ba dugg ci ci loo munul na nga wéet ak yàlla ànd ak suñu borom yàlla day ñëw te yàlla bu ñëwee day law ba ilaa yow mi diini waaw kon nag macha allah euh, wax bi du bari kontaan rek laa am ak mbégte ndax bu ma jàkkaarloog samay taalibe damay bég lool sax kon nag vraiment macha allah soxna Lalla tamit macha allah. taalibe yi daal euh, mbégte rek laay am di leen ñaanal jàmm kon nag macha allah suñu beneen taalibe bi tamit bu bees bi moo ngi noonu moom it fan yii la saan ndeysaan euh, ndar nekk du nekk xaafisul xuraan vraiment wàccee na moom mu ñëw wàccee na kaamil ñeenti yoon moom mu ne mu ñëw tarbiyo mu ñëw ut fi yàlla ut fi yonente bi te defee naa ne sànq gis ngeen aadama fii la tëdd gis yonente yàlla Muhammad salaa salaam kon xam ngeen ne kër gi xam ngeen ne kër gi yàlla rek moo fi ne man sama live suma dund yàlla rek laa àndal macha allah kon nag mbir maa ngi noonu kon nag ñëw leen ñu liggéeyal yàlla ñëw leen ñu liggéeyal yonent bi salaa salaam kon nag macha allah am nañ kontaante ak mbégte di leen ñaanal jàmm doyen macha allah kontaante rek laa am ak mbégte di nuyu nag association nationale association Sénégambie di leen nuyu. di nuyu Sénégambi tu Maane moo jiite Gambien yi aussi ñu ma bëgg la ñu nekk su may taalibe di leen nuyu bu baax a baax di nuyu aussi naa Diop moom it moo ngi ci association Sénégambi bi ànd ak Alseeni ak Fa Bakari ak galo ak ñoom euh, Ami Maane Johnson waa Gambi yëpp ñoo ngi leen di ñaanal bu baax yàlla na yàlla defal leen jàmm ci barki yonente bi salaa salaam kon nag kontaante ak mbégte la ñu am fii ku ñàkk jëriñu ku jëf jël ku fi dugal dërëm déwén waaw da ngay yokk mhm. aussi am na yeneen taalibe nga xamante nekkuñ ci association bi ñoom it ñoo ngi may yónnee addiya ku mel ni Marème Dia moo ngi États-Unis macha allah yónnee na ma plus de cent cinquante mille addiya mu ne ma sëriñ bi lii addiya suukaru koor la yooyu yëpp damay bind teg macha allah ku mel ni aussi euh, Awa Awa Fall aussi moom it c'est la même chose yónnee na ma addiya deux cent mille macha allah soxna Nafisatu barki Dembo Ndiaye aussi yónnee na ma addiya moom it presque cent cinquante mille taalibe yi ñoo ngi may yónnee macha allah waaye nag nañu xam ne ne lépp loo yónnee sëriñ bi da koy jël def ko ci ci ci jaam ñi macha allah yokkute rek la lay dikkale ak ak ak maanaam am yàlla am yónnente bi kon nag kontaan rek laay def doyen. jërëjëf sëriñ bi kàddu yi na. yiw na defe naa ne yokk-yokk boobu ngay wax ku daan joxe ndogu ci R4 di ko luye tey ngay gaare 4 4 9 millions yokk-yokk mënu ko weesu yaa ngi ne ñoom yow bëgg nga waaye defe naa loo bëgg bëgg ñoom ñi jàkkaarloo yow ñoo la gën a bég tey kon nag ñu ngi kontaan bu baax ngoone ngi jox la kàddu mm-hmm. allah sëñ bi ñu ngi kontaan rek di rafetlu kàddu yi ndax ñun taalibe yi ñoom amuñu ku dul yow macha allah nuñ koy waxee rek ñi nekk ba extérieur li may ci saa su ne mag bu dee naan ndox mu tàng suukar saa tax waaye ñi ngay dimbali ci green card yi waxuma la lu leen alaaji Thierno Moule Sow yónnee de mais ci barke ñett Thierno la saw nit nekk fu nekk fa ku mel ne Marème fay saal nekk Daaru Laay international ci lay duggee amul kee ci lay duggee métro kon nag duwaa jaabi bi mi ngi daal ci saa su nekk ci taalu yi en parlant du duwaa jaabi dañ ciy ñëw ci kii nga xam ne moom mooy Marème Marème Sall moom it Marème fay Sall bu Sénégal sax laa koy ndax ñaari Marème Faye la parce que boo xoolee tamit Marème mii macha allah moom la ñu wax léegi alaaji Thierno mu la saw dafa am lu mu jëflanteeg moom mooy li may wax lekkatu kase naxu li bay de macha allah Marème fay mii nga xam ne moo fi ñëwoon yor fukki ju neem macha allah ne sëriñ bi damaa bëgg a faju keroog nee na ba sëriñ bi jëlee ba teg ko loxo ne ko jëlal fukki junni nga dem boob ba tey la tàggoog jinne garab de demal nga liggéey kon fukki junni yooyu ba mu ko yoree ba tey macha allah moom la yor tey di ci liggéey moom laa ko wax nee naa ko yaa ngi dem Malick yaa ngi dem fu ne ci àdduna te gis ngeen li mu wax léegi nee na mënu woon dajale cent franc bu mat macha allah beneen loolu mooy mbareem amaati na ndam deuxième fois muy mbagam bàyyeekoo ba foofu ci Maroc amoon jafe bu ne macha allah keroog ba muy ñëw dañ ko séentire ci avion yi ndax dañ ko tegoon sax maanaam nit ku wére ji kuy dóore waa këram ñëpp naan nangam ak nangam nangam ak nangam bu wóolu sëriñam rek tubaarikàlla macha allah sama waaji ji koo teg loxo doo daanu borom faajuru naajuru ajjuma bente na bintu yaani ko ni caamaani ko ni dama ka jàmbaar jaa ngi nii yaa xuusoon yaa ñaajoon yow la jine sa gi fàqoon topp tubaarikàlla macha allah ca xam-xam ba ca baatin ba yow koo ñaanal day dem ku la yaakaar day dem tubaarikàlla macha allah li may wax ci saa su ne mare mii nee na boobu ba tey mu ne ma naa dafa ne wiiw dafa tëggu grande dame nee na keroog ba magam jaaxle mu ñëw ñëpp naan du ko faj xam nga rek ca famille ñi dañuy dóoru jaar gauche ñee dóoroo jaar droite tubaarikàlla macha allah goro mooy di jub lépp di jub waaye sama waa ji nee na mu ànd yow rek nee na keroog bu mu ko juutalee fii da nga ne sax na dem kër ga waaye fii lañ ko indi keroog nga jàpp jinne bu mag bi nga xam ne mooy Ousmane ci devant nijaayam nijaayam daa di waaf ñu doon wax goro moo daa di waaf tubaarikàlla nee na mu jàkkaarloog yow nee na nga ne jinne bi noo tudd devant tout le monde maa ngi toog ñëpp dag-daggi jinne bi naan Ousmane maa ko def li maa ko def naa nee na keroog mu am ndam am victoire sigi mu lay wan ne moom fu muy dugal dërëm asaalawul asa bombe ko jàmbaar jaa ngi nii nee na fukki junneem yooyu mu doon liggéeyee walla demal gaaw <laughs> boo guddee fanaanal <laughs> kenn du yow moo lay wax ne sama waa <laughs> day ak gëj nga fa ak gëj nga fa <laughs> ak kon mooy wane sama waa ji borom faajuru naajuru macha allah kon madame Sow laa reen ànd ak yow victoire la jàmbaar jaaj noonu sama jeeg bi Ema Mali laa ko tubaar tubaarkàlla ba ngeen nii ay lay tànkam xale zéro taas mi ngi noonu waaw. eh teg naa la bët nga ne ñaar liggéey nga am <laughs> Marème nga ne. eh maanaam tekki nga du ko nangu nga ne la. borom. sëñ bi waat boole ko muy ñaar. nijaayam. ndeysaan. nijaay borom place bi. waaw ndeysaan. Ramou Diouf nu ma bàyyi. Mhm. nga jàppale ma ci sama liggéey ndax liggéey nga tax jaar nga ci boobu. Mhm. ma ñëw di ko liggéey. nijaayam di ko ci buntu ban de touche. ban ma sama saleer wallaahi. man ñu wallaahi dëgg la. wallaahi. double. doubleel lii la rek duwaa jaabi bi la rek. ma sama salaire. wallaahi. moom mu ngi ci bunt bi toog. bu xëyee def ma xarit ñëw toog jàkkaarloog man di wax ak man lu ñorok lu ñorok. da nga ko xaar muy ceen ci maayin. xam naa ceen mu lay sa wax ak lim la def waxoo ko de. Cœur noir la. kooku kër Noir la comme gis ngeen ba rek témoignage am solo bu mu def noonu macha allah gis ngeen ko ñun yi la ñuy def yu baax macha allah dañuy toog suñu sëriñ yóbbul suñu fit du duñu dóor ñu xas du ñu saaga am na ñoo xam ne seen sëriñ ci tendre par quatre den la dëkk waaye saw bu ñu toogee yow dag ñuy dalal dag ñuy defal ci devant suñu jeeg bi madame saw laa reen macha allah nga fital mu fital ñu dooleel ñu saf ginaar ak ni neex ginaar ak noonu sama jeeg bi Emma laa tuddee zéro taas <laughs> dégg ngeen macha allah eh xoolal mi ngi noonu de macha allah asugay gis nga ñu kontaan sëriñ bi nee na rek comme du noonu rek nee bu yoon jeexul rek doa jaabi bu jeexul rek tubaarikàlla macha allah day faral di ñëw ci saa su nekk mareem nee na moo ñëw yeesalaat njébbalam nee na moo ñëw yeesalaat cofeelam mu ne moo yeesalaat taalibeem ci yow li nga koy defal sànq bi muy wax ak man barki yàlla doon jooy sax xamul lu mu wax nee na ma damay am mbégte ci àllaa ceena mu la sax mu ne ma benn ndam bi ma am suñu biir kër rek kere ba may wàccee sama mag fii rek mu ne ma la ma ceena defar tax na ma damaa am victoire mu ne ma tax na ma yoroon ay millions ki milliards dama ko jox nee na lii moo ko joxe moom en personne yeesal ci njébbalam jox la ci li nga xam ne moom mooy sukkar koor nee na moom moo def lii nee na beneen bi nag jinne yi nga xam ne na macha allah cinquante mille fukki junni nee na moo ko yeesalee njébbalam jox la ko suukaru koor nee na beneen bi nag nee na jëndee nag moom tubaarikàlla macha allah dañoo mel ne Ronaldo Ronaldinho rek nee na intervention yi nee na moom cœur noir nee na moom ku ko tooñ sax day toog di xaar ci xelam naan ah man nga def li may ma gannaaw suba gën a ceer na mu lay fekk la neen balaa rool nga gën a fësate ko kooku <laughs> jékki-jékki rek macha lu ñaaw dal ko mooy ki ñu teg ci bande tous bi noonu muy garde te grand monsieur la woon ñu wàccee ko ba zéro à la base mi ngi noonu nii ci jinne yi ñoo juru naajuru addu ba bente la jinne segg yu gaaw yi nga xam ne boo ne moo tax buñ ne ñaata ceerno mu lay am ma ne ko milliard ceerno mu lay ñoo am mu lay nga Dakar ma nga bo ba ma nga kër madame Saw manga nga Touba ma nga Ndiaré ma nga France ma nga États-Unis eh milliard ceerno mu am macha allah nee nag moo jël jinne yi tubaarikàlla jinne yi wéete bu leen ma fàtte bàyyi leen waale ma xew tubaarikàlla soo waaj soo waay li ma fi desagé yëpp nañ ma bàyyi waale xel macha allah ci ñoom faajuru naajuru ñoom maxfuus la guerrier rek ñooñu boole waale naaj sama ziar rek nee la ñett junni yii moo ko jox rek li nga xam ne ne moom mooy jinne yi moo leen ko ziyaare ndax intervention mi ngi koy gis di gis sa ñaan ci saa su nekk nee na moom namutul dara nee na premier jour bu mu dajee la baam un million nee na fa fanaanoo fecc ba fajar di ko ubbi di xool fa mu ko dencoon di xool naa ndax lii un million la moom boole kook ay jooy nag nee na minute bu ne day jóg di xoolaat ndax lii un million la ndax lii maa ko moom di ko compté di ko compté waat nee na mi ngi lay jaajëfal nag ci saa su nekk jërëjëf jërëjëf ajar ngoone ja ci ci intervention bi ak ci pertinence su propos yi ak ci animation bi Ngone sëriñ bi Ngone wax na lu am solo nee na Thierno Moule Sow par ci Thierno Moule Sow par là Thierno Moule Sow partout waaye nag jàpp leen ne original bi moom madame Sow mi moo ko yor sëriñ <laughs> bi kàddu gaa ko. macha allah ndeysaan doyen kontaante rek laa am ak mbégte vraiment Marème Faye Sall maa nu ko ngoone waxe maa ngi fàttaliku bu mu fi ñëwee keroog indi cinquante mille ndeysaan jaaxle woon lool bëri woon ay jafe-jafe nekk ci ay xat-xat ndeysaan bëgg réussir bëgg a avancer mu bëgg ma jox cinquante mili ma xool ko ma ne ah déedéet ma ne ko jëlal cinquante mille nga dem nga liggéeyi xam nga parfois nga dem ci sëriñ du la mën a defal dara sax mu lekk sa xaalis man nag melu ma noonu man parfois nit day ñëw fii sax ma xam ne li nga yor bëriwul nga bëgg ma ko jox ma ne la déedéet demal noonu laa defante ak moom ma ne ko nga dem. mais dem boobu ma ne na dem moom instant boobu xam naa du woon xam maanaam dama ko yabal waaw ne ko demal ba mu demee nag liggéey na ci euh, ba yàlla def ci barke mu ñëw indil ma benn cuup palmaan buy jar cent cinquante mille macha allahu loolu romb mu ñëw fi indi fi ay saak indi fi ay teraanga yi bari di fi indi addiya macha allahu moom million jomb ko taalibe Thierno Moule Million jomb la ndax nag seen sëriñ euh, waaw waaw man million yi doon borom milliards yi waaw waw waaw loolu moom yàlla def na ko yàlla dogal na loolu ma ne ko yàlla dogal na loolu mhm. kon tey bu defee lii vraiment indi cinquante mille def suukaru koor yëkkati quinze mille francs def ko addiyee jinne yi defe naa wàcc na yokku rek ku koy jéem a xeex dangay xaar waaw foog nga toog ci ban tuus moo tax sëriñ bi boo koy defal na ko defal yéene nga defal ko yéene nga ànd ak dëggu ak gëm ak bëgg jinne yaa ngi xool foo amee problème dañuy def intervention carrément loolu moom wër na àdduna bi yëpp partout dans le monde te amul benn sëriñ bi dund actuellement ci mim réew sa taalibe am problème nga def intervention amul ku dul Thierno Moule Sow garde lion Ousmane moo fay chef ñi ko doon xatal garde lion yëpp fulkan naa leen foofu cinq personnes kenn ki sax dafa wàcc liggéey waaw waaw kar kar jag la dóor kooku kar jag la dóor mu mu wàcc moo tax ku xamul Thierno Moule Sow moo koy xeex komin woni ngaari jinna dawnode yaade yeehi artiri jippori wo dulal haɓɓi hunduko ñanneɓe ɓen fof haɓɓi hunduko jinnaji ɗin fof haɓɓi hunduko ceernaɓe ɓen fof haɓɓi hunduko gañoɓe ɓen fof haɓɓi hunduko ayɓe ɓen fof nano e ñaamo funnaange hirnaange pullo e kaaɗo payko e makko ba debbo e gorko kenkatarma kar awaw teli meli kumba meli horaaɗo e hiitaaɗo kala han kala hun titiɗo ceerno mule so keri noddama keri noddama tenirde notowo ma tan tanire tanowo ma jeeko e ma mbo colla e defowo ma sowru soti ko tande gaño ceerno moule diwi tippi allah gañama ko maayi pak sige saami sakke saami sakkiti saami gaño ceerno saami e leydi leydi ubbi on tigi bisimillahi yakko arahmani yakko arahimi yakko goto wawata yakkude ceerno ko ceerno yakkata gaño makko hunde yo mama hunde ko kuuko tenen gundo juma gundo tenen wi an ceerno so a nayway juma wi an ceerno so a furɗay leydi wi an ujubillahi rammude an ceerno so ko an woni dentanal fuuta dialo kala heɓuɗo nene mum sunnini baaba mum ñamata unugal uni e nder laalagal kammu ko on wawanta ceerno so wona ɗum ala wawano ceerno mule kanko e taalibeji makko kanko e ɓesgu makko kanko e yiɗɓe ma wa foof ma naan képp ki nga xamante ne ngeen baal ma ci kàddu hmm? jurul yaayam dugalul baayam néegu góor defe naa ne kenn mënul dugal sa baay néegu góor kenn mënul jur sa yaay mënul ci man dara ñi ma doon xeex yëpp wàcc nañ de ah, du lépp laa bu ma waxee dañ may ragal mais yéen xam ngeen <laughs> am na ñu ma doon xeex déggatoo leen de n'est-ce pas ah non du fay rek am na ñi nga xamante ne <laughs> ñoo ngi barsak ah waaw mm-hmm. am na ñi nga xamante ñoo ngi barsak ah <laughs> du ma wax ñii xam nañ ñii ñi nekk ak man xam nañ du waxu télé bu ma ko waxee bu yàggee ñu ragal ma <laughs> no du ma wax moo tax ñi ñi may xeex man boo ma xeexee ah, yaa ngi si danger de waaw ah, waaw man nag mënuñ ci man dara. sama taalibe tamit noonu la muy moom mii tamit ku koy xeex day xaar mu yéen tamit kon àndal ak sëriñ bi nga bëgg ko ndax sëriñ bi bàyyiwul boppam nii sëriñ bi toogeewul nii man ñi ma doon xeex am na ñi nga xamante ne wàcc nañ de bu leer nañ ñoo ngi ci suuf te xam nga loolu man du may wax sax te du may def dara nag musuma def nit lu bon musuma yéene nit lu bon mais damay toog ñu tàgge ma ko waaw <laughs> damay toog ñu tàgge ma ko defe naa yéen xam ngeen ci dara ah dañuy dañ may woo rek tàgge ma diw ne ma diw ah, dem na te man duma toog ñaanal nit lu bon du ma ko def mais dafa am lu ma àndal boo ma fexelee rek dinañ la defal affaire te man duma ko yëg kon nag nitu yàlla bàyyi ko mu dem maanaam lekkatuma ci ndab li dama ci xëpp suuf <laughs> dana dana saf de dana metti ci yow euh, taalibe yi na ngeen gën a góorgóorlu bëgg sëriñ bi liggéeyal sëriñ bi ndax sëriñ bi namul dara man bu ma neexoon dootuma liggéeyati damay toog rek ndax yàlla teral na ma waaye bëgg jaamu yàlla bëgg liggéeyal suñu borom loolu moo waral ñu liggéey bëgg tamit dimbali jaam ñi loolu moo waral may liggéey waaye nañu gën a góorgóorlu rek vraiment euh, ànd ak sëriñ bi liggéeyal sëriñ bi ànd ak ànd ak sëriñ bi liggéeyal suñu borom ndax nag ah fii kat ñun ñëpp dañuy dem nañu liggéeyal yàlla ak yónente bi du tooñ de waaye boo ko dana la duma dana xeex waaw waaw man du ma tooñ moom waaye boo ma tooñee moom du ma bàyyi ala accu damaa bëri histoire waaw waaw sama histoire du jeex waaw waaw non c'est vrai parce que suñu borom dafa ne buñ la tooñee soo munee baale nga baale soo munul baale nga fayu sëriñ bi nag day fayu waaw waaw waaw pour mu leer loolu yàlla ma ko wax ci alxuraan suñ la tooñee soo munee baale nga baale soo munul baale nga fayu waaw kon nag ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp waaw waaw ah am na ñu ma doon jéem a xeex de waaye kon nag ñoo ngi sant suñu borom ñoo ngi julli ci yonente bi salaa salaam ñoo ngi ñaanal taalibe kon nag ñëw leen ñu liggéeyal yàlla ñëw ñëw leen ñu liggéeyal yonente bi salaa salaam kon nag mbir mi loolu la vraiment Marème Faye Sall adiya bi bari na trop yal na yàlla yokk la yàlla aar la yéen ak taalibe yéen ñëpp yal na yàlla yokku leen bu leen ragal dara yéen a ngi ànd ak Thierno Moule Sow yéen a ngi ànd ak yàlla yéen a ngi ànd ak yonente bi waa ragala ragala ragala féewte day xañe wërsëg ma ne ragala xañe day ragala xañe péyte day xañe wërsëg ajaratu Mariama Kamara moo ngi ci kër ga de ajaratu Kamara moo ngi ci kër ga fan yi dina def sorti wax ak waa TMS wax ak waa adduna bi yëpp waaw kon nag ñoo ngi leen di sant di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullah ngeen tàllal loxo yi ñu ñaanal leen waaw waaw macha allah ñaanu xaas ñaanu kun fayakunu ndax nag li ñuy wax am amrahu isa arada sayan an yakulu lahu ceerno mule kun fayakunu waaw yadillahi fawha ay diihin jungo allah hinay jungang maanaam loxo yàlla mu suma loxo man waaw loolu nag yàlla mooy maye yàlla mooy xool li ko neex def ko fi ko neex loolu jaam munu ci dara waaw waaw yokk rek ba yëg ko kon nag macha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah yàlla yokk